soit un taux de positivité de 9,57%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 80 contacts suivis par nos services, 12 cas issus de la transmission communautaire et répartis entre Anne 1, Front de Terre 1, Parcelle Asseni 1, Ouest Foire 1, Cité Assecna 1, Guédiawaye 1, et Touba 4. 21 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 20 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 3253 cas ont été déclarés positifs, dont 1586 guéris, 38 décédés et donc 1628 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au des mesures de prévention collective et individuelle. asalaamaaleykum ñu ngi ñëw ci communauté numéro 87 di leen jottali lim bii ñu am ci mbas mi ñu naan Covid 19 ci suñu réew Sénégal ci bésu tey bii di àllarba ñaar fukki fan ak juróom ci mois de mai 2020 jot nañu résultat yi ci. juróom-ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak benn test yi nga xamante ne def nañ ko juróom-ñeent fukk ak ñaar dellusi nañ ànd ak doomu jàngoro yi ci yooyu juróom-ñett fukk moom lañuy wax contact mooy yi nga xam suñu bërëbu liggéeykaay yi ñoo leen di seet te leen di topp fukk ak nag ñoom la ñuy wax cas communautaire ñu ngi ci diiwaan yi tey Hann am na benn Front de Terre am na benn Parcelles Assainies am na benn Ouest Foire am na benn Cité Asecna am na benn Géejawaay am na benn Mermoz am na benn yooyu yëpp nag ñu ngi fii ci Ndakaaru ak Mbaaw tam am na benn ca Touba nemmeeku nañ ne am na fa gis nañ fa ñeent cas communautaire ñaar fukki patient ak benn ñoom bi ñu leen seetee gis nañ ne amatuñu doomu jàngoro ji wër nañu ñaar fukk nag moom am nañ ko ci cas grave ñu ngi nekk ci bëriwul soetaas yi mooy maanaam service de réanimation ci l'hôpital yi ñi nga xam ne ñoo tëdd hôpital ñu ngi ànd ak tan ci bésu tey bii ñu ngi toll ci lim bi ñetti junni ak ñaar téeméer ak juróom fukk ak ñett cas yi nga xamante ne am nañ doomu jàngoro ji mooy cas positif ci yooyu junni ak juróom fukk junni ak juróomi téeméer juróom-ñetti fukk ak juróom-benn 1586 mooy junni ak juróomi téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom-benn ñoom wër nañu fanweer ak juróom-ñett làkku nañu mooy génn nañu àddina donc ñi nga xamante ne ñoo tëdd ci lalu hôpital yi ñu leen di faj ci bés bi tey ñu ngi toll si junni ak juróom-benn téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett ministère de la santé et de l'action sociale. mu ngi dellu di ñaax askan wi ñu topp lépp looy digtal ba nga xamante ne bu ñu ko defee tey mbas mi ñuy wax Covid mun a génn suñu dëkk maa ngi leen di gërëm leen di sant wasalaam. Sunugal 24 point net l'information à